Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même Sunugal 24 point net. damaa bëgg ñu taal suñu suñu yaay ji nga xamante ne si lii lépp moom la. ajoor bu tey soxna mu baax nii. yaayu ma jaay seet. bu ma tudd kat la def ndax tey comme si bu ñu war a jëlee. c'est que mariage bi. bis bi yaa ko moom. Yaasin may sa bigé may sa bigé maar ñu naan nga doon doon jarka dem ba ca làbbaay ñii doon ñii ñii faramareen la ti jël dégg bàyyi sa maam kurak xaalis dégg sa maam yaay yaay dama bëgg nga daal di ñëw yi rek xam naa ne dégg nga yëg doy na waar lool yaay bi nga ñëwee gis mbooloo bi ñëpp ñëw teew ci bisub ma yaay bi nga ñëwee gis presse sénégalaise bi kenn wutewul bisub ma yaay bi nga ñëwee gis ay xaritam gis ay jigéenam gis Souleymane gis de best gis mbokk yi xarit nga ñëw gis ni sa doom liggéey na ba ak suñu yaay loolu yëpp. ah kontaan rek di sant euh, samay ñaari wayjur di sant euh, Serigne Touba di sant Cheikh Abdou Karim Mbacké borom Makaarimul Axlaaq di sant euh, ay wayjuram di gërëm Ousmane Seck mi nga xam ni. moo waral lii man farima tamit ci gédé gi ci jolof ah bu du woon moom lii yëpp du am ndax moo yar doomam ba mu màgg tette ko jàngal ko yóbbu ko daara mu jàng ma njaay wàcc na alxuraan ñaari yoon dem na kokki dem na fas booy dem na ba daara bu nekk euh, bambay séeréer kon kii dafa war a baax li ma koy ñaanal nag mooy sama wax bariwut yal na ko yàlla defal li mu bëgg fépp fu mu bëgg egg yal na ko fa suñu borom eggale yal na ko liggéeyam ndeyam walla fu mu fu mu toll lenn rek moom metti mu yëngal sama xol magam bu jigéen mi génn àdduna damaa bëggoon bu fekkee lii lépp maa farima ci gerte gi ci Jolof waaye yàlla lii la bëgg lépp lu muy ñaan ak ma la koy ñaanal yàlla na la dal sama caat maa ngi ne maam lii sa sa rakk ñun ñëpp la ñaanal ñëpp kontaan sa tante jooja seen mi ngi ne toog moo ma jàppale ba ma egsi fii njóogu mi ci jaayaan biram sigin ci jolog ajjuma ngaa mi des ci jaar ji ci mbuur eh su du woon yow lii yëpp du am jooja seen jugal taxaw caméra yi jël la sama mag la ñoo bokk ndey ak baay ah, ma nga na le toog lii lépp moom la moo ma téye moo ma téye ba ba ma téye samay njaboot ba lii lépp am sama caat mu góor mii nag lu mu bëggee yàlla na ko suñu borom defal di ñaanal magam jee toog Ndaama Njaay ñoo bokk baay ba ma Njaay dooree ba tey bàyyiwul ma Njaay mi ngi ko jàpp te yàlla tax li ngeen bëgg yàlla leen ko suñu borom defal ci barke Cheikhul Khadim merci beaucoup maa ngi gërëm Souleymane Souleymane siggil xool ma fu sama doom egg tey Souleymane moo tax mu egg fa Souleymane buggul ma Njaay xiif bëggul ma Njaay rafle buggul ma Njaay mar yére Souleymane lépp Souleymane nga téye sama njaboot gi te yàlla tax li nga bëgg yàlla ko suñu borom defal mënoon naa tey dama ne woon du ma ñëw waaye sama borom kër da ne ma faaw nga dem demal man maa ngi toog di ñaanal ma njaay yow foo bëgg a yegg maar fari ma tam ci gi jolof ma ngoone gay faramaareen ba da nga fay egg ndax dangaa yërëm sa ndey loo am jox nga ma ko jàppale nga say rakk yërëm nga ma kon loo bëgg bul tiit newoon naa la pentola bul tiit bu ragal maa ngi sa ginnaaw bul tiit bu ragal maa ngi sa ginnaaw mm. merci beaucoup kontaan naa yaakaar naa ne kàddu yi kàddu yu daw yaram la Omaro yaakaar naa ni seede yi dal na xel Sunugal 24 point net l'information à sa juste valeur c'est ici même